daadi wa qalami أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم فارقت إبليس وجمع المفاسد وبسم الله الرحمن الرحيم لازمت رسول الله صلى الله تعالى وجمع المصالح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ñu ngi ziare baax mbokk internet yi di lañu jox seen wàccuwaay di lañu ziare bu wér si màggal gii ñu dëgmal muy màggalu Seexul Xadim tey nag ñu ñëw seen benn émission bu bees tàkk kan mooy sëriñ Touba at lu aju si màggal gi ñu ànd ko ak sunu sëriñ sunu soppe sunu xarit muy sëriñ Serigne Khadim Gueye kennal borom Touba balaa ñuy sori si kàddu gi ñu jox ko mu nuyoo sëñ bi bisimilah. bisimilah barke borom Touba. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ah noo bu baax a baax. suñu maamoor di siyaar waa télé bi yëpp. Ah, di siar mboole murit yépp ak fu nu mën nekk julit ñëpp ah, di ñaan suñu kaddu yi nga xamé ni ci mom lañu yëkëti ci maglu borom tuba gi yalla na lepp depp ngeeramal borom tuba amin ci ñi koy dégg ñi dégg dégg amin amiin jërëjëf waaw ñong gi ñong koy jaar be di ko ndokkel ci nuyu gu am solo bi waaye suñu Xaadim hmm. kon bala ñuy gëna sori si waxtan bi hmm. ñu ñu ñu ñu bëgg a xam. Hmm. maanaam màggal. Hmm. maanaam lan lan mooy màggalu Tuuba. Hmm. lan mooy soos bi. lan mooy cosaan bi. Mhm. waaw euh, jërëjëf suñu maam lan mooy màggalu Tuuba boo ko waxee ah, li ñuy tontu rek mooy sant yàlla. Mhm. sant yàlla sant yàlla goo xamee ni si sunu boroom dafa bëgg lool ku ko sant. Mhm. ndax boo xoolee ci alquran mhm. dafay wax ni yéen de ñi ciy sant ñu néew lañu mhm. te ñëpp la dimbali mhm. kon cant goo gi nag moom la boroom tuubaa maam jaar ak sunu boroom foo xamee si kenn mësu ko faa jaar waaye sunu boroom nag faye ko loo xamee ni si mësu koo faye kenn sëriñ bi nag loolu ko sunu borom defal mu ci sant yàlla ba mu yàgg mu ne lott na ci cant gi mu war a sant sunu boroom mhm. daane na képp koo xamee ni sii mhm. sama nit nga mhm. wala sama mbégte sa mbégte la bu bis bii dikkatee maanaam nang ma ci sant la yàlla kon màggalu Tuubaa mooy bisub sant yàlla sant ndax sant yàlla moom ñëpp a koy def waaye ab bis boo xamee sii dañ koo jël Mhm. ne tey bis bii moom ñëpp dañuy daje ngir sant yàlla loolu moom amul fenn mhm. fu ma masa am na soso ba tey mhm. kenn ku ne da sant rek si cantu bopp waaye nañ dajaloo sant yàlla ci xéewal yi ñu yàlla defal loolu suñ tubaab ku njëkk a woote te moo ko mujjee woote te alxuraan ka dafa waxoon la in sakartum na zidannakum ndegam yàlla ne bu ngeen santee ma dolli kon nag cant googa Hmm. kon mooy màggalu Touba. màggalu waaye nag comme li nga wax. Hmm. la ko waral ak hmm. fa mu jóge sëriñ bi dafa am loo xam ne si contrat la bu mu signante suñu boroom loolu mooy lan fii ci mba euh, jàkkee Daaru Xuddoos. foofa la sëñ bi defoon lixtikaafam boogee. bi mu ko defee nag. yàlla dogal. yonent salaay salaam feeñu ko ànd ak waa ahlu badar comme na nga ko baaxoo def. loolu suñu blaat nettali na ko nit li wér mhm. waaye nee na bi ñu yegsee yonent bi dañu sëñ bi loo bëgg mu ne ko bokk ci ñii mhm. waaye lam ko xamal mooy bokk ci ñi faat na mhm. ndax ñii kat ñoo àndoon man xare badar taxawal lislaam te loola faat na daan ne ko day bari na kook bu masaana toll fii nga toll ci yàlla gisee ma nii nga ma gisee du am dul xéemtéef bi waaye nag la cay tax a bokk nattu la yoo xamee ni si suñ boroom dana la ko teg te maanaam bokk ko attanul maanaam boo nee ox oh rek yàlla da rékki te loolu yéenewuma la ko àgg ci ne ko nit sax du doon xut bu amul ñeent fukki at waaye yow kat si ñeent fukki na ñeenti weer waaye gërëm guma la gërëm dina tax tey danaa ko xëcc ba mu mat sëñ bi ne ko loolu yëpp baax na waaye bokk ci ñi rek yonent bi salaay salaam ñeewante ko ci nattu yi daa sëñ bi ne ko ruugi day laa xamul waaye ruugi lu mu àttan jom gi àttan na dafa am lu ñu ci war a jàngate mhm. ñun jullit ñi rawatina murit mooy jom ak décision boo xam ne Sëñ Tuubaa rek ko am mhm. ndax kat mhm. nit góor yàlla yu bari buñ masaan a dox ba gis yenn bi sallallahu alayhi ci gént rek ñoom seen aajo faju na daanaka dañ naan lépp mat na moom nag mu dem ba gis ko jëran mu ñëw na mu mel jëmmam ne ko loo bëgg mu wax ko ko yonent bi takkal ko garaatu xutbu samaan sëñ bi ne ko loolu yëpp baax na waaye bëgg naa lu ko ëpp xam nga sëñ bi avant dem si géej gi la am garaat am na garaat bi ci fii waaw maanaam ci ci ci daar xudóos ndax yonent bi jox na ko ko hmm. sëñ bi daat ne ko am naa lu ma bëgg waaye loola hmm. am na lu ko gën a yéeme hmm. bi ko suñ boroom waxee nattu yi sëñ bi ne ko na ma dal moo tax suñu saakanaan Eh, may na ma delub lislaam sëf leen ma jóor leen ma ko jam mu ne keroog la téeñu fab yanam ba wettili ko yàlla ba dem maayom ngir bëgg mu ràmm jamono ko kookoy borom waaye bi loolu amee yonent bi ne ko nag comme nong nga si naa jilul na cëpp mhm. xamal ko nak ne ko kon da ngay génn dëkk bi mhm. ndax tuuba xarasalaaw yàlla moo koy aar ne ko dëkk bi fii ak fi sab non du la dara tanat bi faaw nga dajeeg say noonu sëriñ bi loolu moo waral mu dem Mbàkke Baari maam dem ngir di xaar ngir dajeeki noonam ku dul sëriñ bi say noon mhm. dangay dox maam da ngay daw ñu lay topp ba dajeek yow walla ba jàpp la nga xam ne amutoo foo jëm. nga xamante ni noonu foofu la nekk Mbacke Baye. Mm, déedéet noonu yaa nga ndar. waaye moom moo leen di xaar. moo leen jeewal la ñuy daje. li ñu tàggat waaw. ci xamante ni ñoo ko war a. waaw mangoog. te lii kudul moom. danga nga daan dem yow ñu ne say noonu gi ñëw nga daw. Mm-hmm. wala tey ngay dox di dox ba dajeeg ñoom. Mm-hmm. waaye moom noon yaa ngi nii te xamal ko ni ko sa dëkk. Mm-hmm. fii ak yaa ngi fii nekk. say noonu duñ la mënal dara mu génn Touba ngir dajeeg ki noonu. xamante ni dëkk moom bu toogoon kenn du ko mënal dara. Touba xarasal allah yàlla moo ko mooy mooy aar Touba. sëriñ bi génn door dem Mbàkke Baari daa di daje foofa toog di fa xaar ba noon yi jógee ndar mhm. mu jóge moom it Mbàkke euh, mu jóge moom it euh, Baari mhm. ñu daje jeewal mhm. loolu nag sëñ Fallou Mbàkke day wax ni keroog ba mu yéegee ca fas wa nee na si naa jir dana cëpp na sa borom ne loo bëgg mu ne ko lépp mu ne ko fabal xam nga fee yentu joxoon na ko garaat fii yàlla jox na ko lépp jox na ko lépp suñu moo ko jox lépp ne fabal léegi nag foofu dafa am jàngat xam nga loo soxla mu ne ko lépp mu ne ko fabal ba noppi sëñ bi dem ci géej Mhm. kon war nañoo laaj lan moo taxoon kon mu tukki. mu tukki waaw loolu lu am solo. waaw ndax léegi lépp moom lépp ngi ci biir bu sax xel dem rek. Mhm. mi ngi ci lépp. te nee na ko fabal. Mhm. sëñ bi daal di fab lépp yàlla. ba noppi laxasaay dem ci géej ana lu waral lool. mooy booba xam na ni mën naa am lépp. waaw waaye nag bu teew bu demul. ñun sawara lañ jëm. wallaahi loolu la nit ñi xamul. loolu nit ñi waaw fii tukki bi. Mhm. sëñ bi daa dem ngir ràmmuñu ñu. ngir ràmmuñu moo waral sëñ Musaa Ka ne dogoon ko nag dem ji. wolof nasaraanu te kon billaahi ñëpp dem niiraan daawaan. nga xam ni kon léegi. sëñ bi kon tukki bi ak nattu yëpp ngir bëgg ñun ñu mucc ci sawara. te suñu borom kat ba muy waat naan lam li an na jaan na mi ne jinnati wan naasi ajmaïn hmm. suñu jëmm yee tax loolu dara ci yàlla na bind aw xeet. Hmm. ngir yóbbu leen sawara teewul mu yàlla xamal ko waral. faalun limaa yuriid lu ko neex lay def. léegi nag mhm. sëñ bi dikk mhm. maam jànkoonteeg coono yooya mhm. ak natt yooya yéen salaay salaam nag li ma lay mën a dimbalee ci ci ci natt yi mooy nattu buy bëgg a dikk danaa ñëw ne nattu natt sàngam a ngi ñëw nii lay demee waaye foofu laa ca yem xanaa boobu ba tey moo gën a tee metti ci misaal dox na jëm ci eh, eh, maam yeer mi nga xam dañ koo taal ba mu doon sawara yonent bi day ñëw ne ah fee nga jëm nag am yeer la dañ koo da dañoo am ay saakuñ teg ci kaw léegi neeñ la neex naa jullee waaye boo demee ci biir kàmb gi nga nga ngay daanu moom pare na ci day xam loolu te day xam loolu te teewul faaw mu def ko ndax léegi ci contrat bi la nga xam ni kon bañoon gee xam sax booy xool da nga naan moo gën a sedd léegi nag sëñ bi nekk ci loolu sama niyaa yéegin mm-hmm. maam juróom-ñetti at yu manqué tuuti mm-hmm. yoo xamee ni sii nattu yiñ ko doon teg par góor yàlla gasa xel gën a yaakaar ak mu màgg buñ ko ko tegoon maanaam ci benn seconde mu faatu nett yuñ koy teg par bis maanaam ab yonent lu mu màgg-màgg mhm. buñ ko ko tegoon une semaine mhm. mu faatu sëriñ bi tegoo loolu yëpp ngir lan mhm. ngir ñun ñu mucc maanaam nag loolu moo waral mu am sañ-sañu ba mu demee dëkk bay dëpp yàlla ne ko nag léegi waxal kon léegi ci loo bëgg ca ñoom ña taxoon nga xam ne ngaa bañ dem si sawara nga waxal li nga bëgg ci ñoom moo xam su dee say doom nga wax bu dee say taalibe nga wax bu dee koo wax rek mu mucc déggal lam wax ijaal ruju'i ila xawmi saadatana wal takfinal yawma jamil xalqi miiraana ne ko sama dëpp mhm. mu ne mu ne ko réew ma mhm. na ñëpp taxi mucc sawar waaw réew ma réew ma kookoy ku dul moom bi ngay ñaan dangay ñaan say doom wala sa saw askan wala sa njaboot suñ tubaa rek mooy koo xamee ni si buy ñaan day wër da da ñëpp lay boole ndax mm. irham jamial wara la yaa maalikal mulki yaa man jalan xawadin irham jamial wara yaa diarala kon baax suñ tubaa rek ko def ndeysaan koo gis mm-hmm. daa u ut ak baax rek am lu mu baax le mm-hmm. am lu mu bon le mm-hmm. sëñ bi lépp baax léegi nag bi loolu amee mu daal di dugg ci géej gi ak la mu daj Mm-hmm. ak lañ ko fa def. Mm-hmm. Gabon def lépp. Mm-hmm. sunu borom di xool. nga xam ni si lam ca dolli mooy. bis bii di fukki fan ak juróom-ñett. bu dikkee. maanaam nattu yi. bu fekkoon fukk la ren. bu bis bi delsee day doon téeméer. waaye bu doonee téeméer. bu bis bi delsee ci déwén day doon junni. waaye bu doonee junni bu bis bi delsee day doon fukki junni. nga xam ni noonu lañ ko doon tege natt yi. waaw nga xamante ni bis bu dellu si waaw day gën di bëri ay dañ koy ful. ci ay natt yu metti yu tar waaw yu tar te xamul mooy. Mhm. natt yi ko yàlla doon teg yi ci gën a sedd. Mhm. mooy yi bi teg nasaraan. ndax doomu aadama xamul lu metti moom li mu xam li metti ci moom. lu metti ci moom waaw te noom te doomu aadama ni mu toll lay jëfee. bu dee yàlla nag ni mu toll lay jëfee. allahu akbar te sëñ bi bëgg lépp yàlla. allahu akbar seen yi loolu seen la gaañ xamul. moo tax fii tey bu ñuy wax waaw def nañ ko lii ca gabam def nañ ko lii yooyu du dara ci Sëñ Tuubaa mais la ko yàllay teg loo xam ni moom ak yàlla ñoo ko xam te du ko wax du ko nettali métier yooyu yëpp waaw wax kenn du ko nettali déedéet te loola bu amul woon ñun ñëpp ñu dem sawar ci moo tax mu daa xam doo xam mu daa wax naan ca mañ maa naan yéen ñii ma topp mhm. dogoon ko nag topp ngeen ma topp yéen ñëpp sawar a ngeen jëm léegi nag mhm. bi loolu amee di dikk di dikk ba bis mhm. nee na mu toog di waajal mhm. maanaam euh, natt yi mhm. nee si naa jibril ne cëpp mu ko ah, ñu def mu sa boroom nee na mhm. maanaam natt yi mat na léegi fay gi moo des ndeysaan fay gi moo des nag ne nag ni natt yi doon demee noonu la fay gi demee buñ la fayee ren fukk bu déwénee téeméer la ñuy fay la fayee téeméer ba at ba junni lañu lay fay ne ko noonu def ba adduna tukki bu adduna tukkee it nga xamee ni si moom léegi yomal xiyaam amatul bis wala bis yi wuti na ak bis yi ne ko bu boobaay it sunu borom mi xam lépp teewul moom bu bisu màggal ñëwee noonee la koy àjjana dana soppeeku ci neex ba ñépp waa àjjana daal ni waaw lu xew ñu ne bisu boroom tubaabu moo del si comme maam comme balaa ñuy dugg foofu carrément. waaw daa lu mu doon laaj si Gabo. waaw suñ tubaab Gabo lu dund lu tar loo xamante ni. Hmm. maam hmm. bi la mu fa dund lépp lu tar. lu tar waaw. maanaam lu neex dund ko Gabon. waaw. ndax hmm. bokk na ci yi mu waxul moo gën a metti ci maanaam faj ko yóbbu am na fa xeeti euh, tey suñ ko doon misaal ñun du fel waaye di ñaan ay fel waaye dañuy toll ni weñ te bu ñu xësee ba ni cuqet ba téye mhm. di màtt mhm. dañuy mat bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu dañ maanaam mhm. bu ñuy dindi dañuy yóbbaale der wa te sëñ bi amul sañ-sañu rey ca benn hmm. amul sañ-sañu wokkutu hmm. amul sañ-sañu dàq ci benn loolu dañ na ko fa hmm. waaye dañ na fa it bis takk nañ ko ci banque hmm. ba mu dëgër hmm. ñu jël maanaam fukki nit ak ñett hmm. yoo xam ni ñëpp dañu leen jox fital ku nekk ñu wax la cëb cëram fa nga xamin si fa ngay fa ngay dóor histoire boobu gabon la xew gabon la xewe maanaam ñu diir biñ ñëw ëpp ñëpp tiireendoo waaye kéemaan ga ci am mooy maanaam ku ci ne yow su fekkee ab tànk nga doon diir yow sa tànk ngay jam mhm. bu fekkee bët nga doon diir sa bët ngay ngay jam mhm. ndax li ko waral mooy biraasuman baari sa nii biraasuman yu baari sul muntaqiman baari saman képp koo xam ne sii mhm. yaa ngi léewtoog man yàlla ngay léewtool te yàlla tey fi ne nii képp ku jóg jëm ci moom doo bari ndam loolu moo waral tubaab bi nag bi nga xam ne sii dem na ba lépp mat lu mu jàpp ni Mhm. ku ko def ah, doomu aadama mu faatu def nañ ko borom tuuba ci yàlla te moo ne li ma la bëgg a mooy lenn mhm. maam bu dee yonent ya mhm. seen noon yi ñu maam boo ci wàññee jun boo ci wàññee junni noon ya ca gën a xarañ te gën caa bon te gën caa maam metti lu ñu def maam benn tubaa bu nasaraan bu ànduna suñ tubaa ko raw ci caay-caay ci lépp sëñ bi ànd ak ñoom te dune fu ngeen may jëme Mm-hmm. te du du ngeen ma fa jëmee. Mm-hmm. te wax dara. Mm-hmm. kooku mooy borom Touba. kooku mooy borom Touba mu ànd ak ba. walaay ga jàmbaar ga. ngir suñu jëmm yi. ngir moo tax sëñ bay jax ne ko. yow dong yaa baax. ngir yaa ni cas baax. ni casi xar baax jox ñu sang baax. allah akbar waaw ni ko fa ay di fëkkee nit nga nu fëkkee. ndeysaan teg ñu fi fëkkee yëgu sang baax. kookoy borom borom Touba waaw moo tax. bis bi nag. bi mu dikkee. Mm-hmm. mu di ci sant yàlla di ci sant yàlla ba bis mm-hmm. mu gis ni may yi sotteekoo mu door a woote mm-hmm. mooy li ma wax sànq sëñ Balla Faali Jëng ak mag ñi ñu bari daal dina leen bis bii day damaa bëgg bu del seetee koo xamee ni si sama mbég sa mbéga maa bis bi da ngeen ko def nig tabaski nig tabaski laa wax fii nag damay dégg boroom xam-xam yi ci yoon wi. Mhm. ku ci nekk ak mi nga xamante si moom ngay interpréter. Mhm. mbir mi. Mhm. waaye sëñ Tuubaa waxu li ay wolof la wax. ay wolof la wax te ñun ay wolof la la la ñu nàmb. da ngay dégg gaay naan bis bu dikkee dañuy jaamu yàlla na ñuy julli na ñuy jàng alxuraan yooyu la ñuy wax yooyu ñu ngi ci woon ñëpp ngi ci woon. walaay ndeysaan li gaa ñu nekkul woon mooy sant yàlla ci mberne. ci mberne waaw. te loolu sëñ Tuubaa wax. te dama bëgg balaa ñuy dugg. Hmm. maanaam si dëgg-dëgg sëñ bi lu mu hmm. wax. waaw ñu xam berne ak xam dëgg-dëgg. waaw ak bernde lu si yàlla wax. waaw si bernde ak kasa. Hmm. ndax bernde. mooy loo xam ne si yéen si laay salaam dafa wax ni. yàlla nee jël fekk sa mbokkum jullit mu xiif nga jël benn tib. jox ko. moo gën tabax junniy juma. allahu akbar kon loola màgg na fa yàlla. fi ne nag li màgg ci ñun. amul solo. Mhm. la rëy fa yàlla moom solo solo te sëriñ bi mhm. mësta juyoog boroomam mësta tooñ moroomam léegi nag bernde googu mhm. nga xam ne si moom la sëñ bi wax daal na te da koo leeral ndax dañu bu dikkee ginaar ba ci gileem xam sëñ Tuubaa bu ne woon bu dikkee dee leen julli yoor yoor kon ñu xam ni loolu lañ ci digal bu ne woon bis bi dikkee dee woor Mhm. kon ñu xam loolu lañ ci digal mhm. bu doon bu bis bi di jëleen ci jang nangami kamil alquran mhm. lu xam loolu lañ ci digal waaye seigne touba dañuy màggal bernde te moom ma ko njëkk a def it am xaram bañ ko ko reyalee mu def ko ñetti sam ben bi mu jox ko wajur sëñ du khadir ba ca dess mu jox ko rakkam rakki soxna sa ba ca dess mu jox ko wa daara ja daal ne bis bu ñëwetee maanaam na ngeen mako defele ni ndax kat lotu na ci tiant yalla gi ci wara sant te bernde gi ma ci wara joxe kon nak fuway meuna nek bu bis bi dikke na nga xamni bis bi moy sama bis da ci ne mhm. ta kat ibrahima mhm. tabaski da ni bis bo fi gis nit dafa jaar fa jall wax mag ni da ni sude tabaski mhm. yent yalla ibrahima manam moko ko bisama ñu ne mu da ni budé gamu Hmm. yonent sala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bis bi mu gën a àdduna bisama topp bis yooyu ba mu jeex hmm. daal ne man nag lii mooy sama bis te lu ngeen am bis bii moo leen ko may daal ne nag kon bu dikkee na ngeen ko def ni ngeen defum tabaski suñ tubaax booba de lii fi ne gars duñ ko waaye dañu ku ci am ñaari xar hmm. na nga benn bi Ibrahima bi ci des nga bàyyil ma ko fi ba tabaski daal ne ku ci am benn na ko téye ba màggal nga jox ma ko lu tax duñu wax loolu daan ne ndax mhm. Ibrahima kat mhm. baax na lool waaye yéen man ngeen amal mbir daa wax daa wax si am um, ñaari xar waaw na ma ko na ma ko Ibrahima waaw waaye téyel ma ko ba màggal waaw mu ne ku si am benn waaw na ma ko téyel ba màggal ba ba kon nga xam ne kon mbir mi kon bernde la kon <laughs> teyit la ca doy waar mooy li tax mu ne la ginaar ba ci gileem mhm. mooy fii ni tey dem nañ ci ba jàpp ni màggal gi mhm. yow mi doon boroom kër wala yow mi ki yaa war a def waaye tey fii ni liir bi juddu tey sax mhm. màggal daa war a rey ndax fii ni at mi xale bi juróomi dërëm yi muy ñaan bu ko doon dajale ba at bi del sax war naa mën a amum ginaar fii màggal jot mhm. yow reyo rendi woo dara def ci waaw wóorul wérul warul warul ndax gars yi day mel ni maanaam ñoom nekk si xidma may sax liñ gën a tal waaw ci rendi si te dañoo war a rendi joxe ndax suñu Saliou Mbacke dañu woon ñaar bu ñu dendee. Mhm. kii def ci magal waaw ki defu ci baran di dewen daan na nak fi ak guñu ba nopi waaw mbeddi Touba yi def ay nafi ndawal yu dess waaw nañ xamni magal guñu waaw loolu ma ngi do wax ci ben bay sax. Serigne Saliou neena hmm. ki dundal ko ki fonkul ko dundal ko jël na ndam. kon jeex na legi nak loolu kon moy li nga xamni si moy li am. Mhm. legi su ko defé nak kula mën ci magal mo mhm. la mën ci saayir Mhm. moo la mën ci baat ndax dégg nga mhm. su ko defee kon ñu xam ni kon màggal gi mhm. mooy sunu bis waaye bis bi it ki ñu ko jox dani ñi ngeen koy defee moo tax su Musaa Ka ne la nee na ku màggal bisub tukkeem ba jihaar nga aj nga umra am nga yool ba allahu akbar fii loolu mooy màggal fii ki aj yool aj rek lay am ki jihaat yoonub jihaat day am ki umra yoonu umra lay am boo màggalee nag nee na ku màggali bisub tukkeem ba. Mhm. jaar nga aj nga umra am nga yool ba. kon suñu musaaka day wax bisum tukkoom ba. waaw kon suñu tubaab bu muy tukki lay lay màggal. waaw léegi nag foofu. Mhm. loolu da laaj nga laaj bu am solo. loolu dafa yéeme. ndax ku dul sëñ Tuubaa. waaw bis bi nga xamee ni si ci la la yàlla gërëm moom ngay màggal. wala bis bi nga amee victoire moom ngay màggal. bis bi nga xamee ni si ci nga amee loolu moom ngay màgg sëriñ bi rek moo mës a jóg mhm. bis bi nga xamee ni si moom ci la ay metitam ay naqaram ay tiisam di tàmbali moom bis booba lay màgg. nga xamante ni nga xamante ni ba ba muy dem tukkeem ba. waaw ñun ñoo amoon njàqare. dëgg la dañuy dalal. barke borom Touba. ndax ba mu ñëwee ñu sant la ko si yàlla. sant la ko si bisu naqar googu. ma ngoog kenn du xaadim rasul. ma ngoog moo tax mu ne. kon moo tax suñu saaka ne. Hmm. déglul ma wax la bis bi jar miraasu. Hmm, ndeysaan ba dese woo dara ni kuy faraasu. allahu akbar. léegi nag miraasu moom ki faat dañuy miraas. kon xam xam léppam la ñuy génne rek. Ah, kon ndege kon mu bi kon bu bis bi dikkee kon bu amé kër ak lu mu am da ko wara jaay def ci magal bi. walaay damaa koy su ben paysane man li jar na miiras sa bop nak pass dem duggi garage fas yéene màggal. barke borom Touba <laughs> looluy dëgg. sëñ Touba motax kon nun danoo am lool. manam mhm. ñi jitu won amunu ko. billahi walay ñi fi tay ku dul ñun amu ko. amu ko billaay walaay. te ñi ñew ëllëg it ku mel ni ñun du ko am. waaw ndax da am kuy wax lu am solo mu ni ñun Sénégal lo wara sante sant te sëñ Touba xéewal la. xéwal bu nu yàlla xéwal. dëgg la ñu bëri koy namoo. waaw ñun ñu am ko kon loolu ñu war a sant la. waaw waaye nag xam nga li am mooy. Hmm. Euh, ñun. Hmm. suñ tubaa <laughs> dañoo jomb. ba noppi yomb ñu. loolu la am solo. waaw suñ ba noppi yomb. te loolu tey balaa nga xam suñ tubaa mu feeñ mu dul hmm. yàlla bu mu doon nit ku weex moo xam nasaraan moo xam arab ñun nit ñu ñuul ñi. tuubaa duñ fi dugg. waaw dëgg de bu ñëwee ci aéroport ba la ñuy taxaw ñu ne ñu Touba fii la féete ñu taal suñu loxo. ngir lan wormaal guñ koy wormaal. wormaal guñ koy wormaal. waaye sëñ bi tey defal nu lépp. amul nu lépp. melal nu lépp. bilaay walaay ñun. ñu war koo delloo. waaw xamin si. maanaam mooy lan. Mhm. cant gi. cant gi waaw. Mhm. te sant sëñ bi fi tey xeeti jaamu yàlla yëpp a màgg. waaye bu gën a màgg sant yàlla amul te fi nekk nii tey damay wax ni. Mhm. Euh, gis nga commerce. Mhm. métier mu ko gën a dagan néew na. waaye am na fu muy xaraame nag. Mhm. xam fan. aljuma. bu ñu noddee. ku jaay def nga lu xaraam. ku jënd def nga lu xaraam. alquran dañ la ku la wasra boobu wala tuuti foofu. lekk leen naan leen te bu leen yàq. te leen yàq. kon loola dagan waaye am na fu mu xaraam. maam weeru koor. d'accord bëccëg gi boo ngant waaw boo lekkee na def lu xaraam def lu xaraam ndax dégg nga ko baax dégg naa baax baax waaye màggalit mhm. maanaam loo mën a dégg waaw la ca dagan waaw mooy màggal moom bernde bernde <laughs> ndeysaan loolu daal mooy li nga xam si waaw mooy li am ah, bi mu dikkee nag natt yooya ba muy ba muy ñëw mhm. ngir wax la mbaaxu ne mhm. ne yi kat sunu borom mi ngi ma koy teg. Mm-hmm. te yéen seen lépp ci man ngeen ko aju. Mm-hmm. kon bis bi bu dikkee na ci ku ne jël wàllam. te bu ko waxoon yàlla def ko nga xam si comme ni ñuy màggale. ne lott naaj mm-hmm. kon ku ne da nga ci jël sa wàll waaye ku ci jënd benn nag faatu. waaye sëñ bi it amoon na ci sañ-sañ. ndax dañoo moom ñun moom wér. dañoo moom moomuk jënd. Ah. dañoo moom moomuk sarax. dañoo moom moomuk moom. moomuk bind. léegi waaye loola nattu ya la muy rëy rëy. men moom rek moo ko tegoo. te gaañ ñu ne mi ngi tegoo lii. waaye ba cant ga ñëwee fay ga. Ah. mu daal ne ñëw leen nag. Mhm. sant leen ma ca cant gi. xam nga bu ne woon nañ koy jàng alxuraan. Mhm. di nga gis tey murid yi bu fekkee tey junni lañu. di nga gis téeméer boo xam ne suy ñoom feruñu ujji duñ ko mën a jàng. Mhm. waaye tey muy bañ kenn son tax mu ne kon léegi nañ ko def bernde. nga xam ne nga xam ni ku mënta togg. <laughs> waaw mën ngaa lekk <laughs> ku mënta rendi. mën ngaa jënd jox. ci Sëriñ Tuubaa ok loolu yomb na. nga xamante yow muy lekk sax. waaw da bu bu waaw loolu wax ndax damay boo demee. <laughs> ba amoo loo joxe ñu lekk ko. Hmm. yow demal fa ñuy joxe ngay lekk yow. Ah, day lekk rek. te fas ci li nga bëgg. comme kalaaw Sëriñ Mbàkke bi day lekk rek. waaw kon ma ngoog. walaay ndeysaan. comme sëñ bi comme ñoo ngi dugg si part bu am solo. Hmm. muy part kenn la Sëriñ waaw Sëriñ Tuubaa Hmm. waaw ñun da nga kaa war a kennal ndax lu mu jëf. Hmm. lu mu jëf fu mu ko jëf. waaw sa kaw la nga dëgg la de. kon nag njëkkee si mom di kennal. dafay hmm. dafay ya, ya am solo ndax dama doon wax si benn xas de bu solo bani ya hmm. yaa xafifan bikal xarakaatu. Hmm. tamuna naa yett say galañ fëgg mooy dal. Seexu Naar Bamba mii borom mee ko jiital. bàyyi leen waay di wut morom di sakal. sàkkal. dëgg la ñamu defar ba noppi rek du nu naw léegi. ñii di jëw da waj waj ak di ñuy tànkal. mooy noonu gi at di am si ñoom ngën gi ay yu ko am si ñoom ngën gi ay garaat yu ko bu bis bu suuree. Hmm. ñu xam ka mën di koy sàddal. dëgg la loolu nag muy kenn Serigne Touba. waaw ma bëgg ñu tàmbalee waxtaan bi dëgg-dëgg. Hmm. maam Serigne Touba nu ñu ko war a kennale. xàkk saay ko. waaw léegi nag. waaw maam lu njëkk am maam xas di yoo xamante ni maam Serigne Touba comme yàlla maam. Hmm. moo ko njëkk kennal beral. dëgg la. kon foofu la ñuy njëkkee tubb. bu ko defee ñu ñëw dëgg-dëgg. kennal Serigne Touba. dëgg la. Mhm. xam nga. sëñ Mamor li nga wax mooy lépp muy kennal borom Touba ah loolu sëñ bay jaxate dafa am bay dim ci waxoon te boobu sëñ bay ngi fi kon yow yaa di kenn ku dee nga donn te yow de kenn kat du la donn mbooleem ña donn ak lañu donn ngay boole donn dikk ni jonn yaa njëkk ñëpp yaa mujj ñépp yaa nekk fépp ëpp nga lépp kookoy borom Tuubaa kennal nag buñ ko waxee ki xamul yàlla lañ war a kennal mais sëriñ bi yalla bu fekkonté amna objet bu ko ñor ci kaw suuf mhm. muy seigne touba lepp loko defal yalla begg na ci ta yalla nga ko defal te yalla ko njëkk ber ndax raditu anni wa wa anni rad motax seigne bay daal ne kon seigne bi dañ ko wara ber kennal ko kennal gi nak moy lan nga jël seigne bi tek ko fo xamé ni si fala la ko yalla tek ndax mom kat dafa bind ni dalani allahu ala muhammad wa xaadini muhammad bi samad yàlla moo ko tegtal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent bi sallallahu nag moo ko womat yóbbu ko ba ca yàlla waaye sëriñ bi nee na ba ma àggee ci yàlla maag yàlla nekk nan fa lu yàgg ñun ñaar rek wéet moo mu ne lastu asukku abadan fii kaw nii jal bi di ajaban biir kaw nii ku am xel tey xellu xam nga ni man ak yàlla ñoo nekk sëñ bay jaxate firgol ne ko yow fa nga nekk yàlla fa nekk kenn du fa nekk ku dul yow moom mësee sufaane mënee sufaane bu kenn foog ni mën ñu ko juum laa comme ne kenn mësu faane kenn mësu faane sëriñ bi rekk fa ba sa nekk ak yàlla la waral lool nag mooy sunu boroom dafa am lu mboxoon uddu ani astajib lakum ñaan leen ma rek ma may leen kenn ku nekk nag na nga toll ngay ñaane yàlla ki nga xam ne si day jaay gerte caaf moom buy ñaan naan yàlla yàlla na sama gerte gi jar ki nga xam yàlla na daal yi jar Mm-hmm. waaye te suñu maam Ibrahima moom ba muy ñaan yàlla dañu woon yàlla maa bëgg a doon sab xarit mm-hmm. bu alquran waxul woon ne xaritub yàlla la mm-hmm. kon tey boo ko waxee ñu ne eh ku toll ni yàlla nga ko utal am mbindeefam naan ab xaritam la lu mën am yàlla may na ko loolu ndax moo lu ma waay ñaan lu may la ko am keneen ku jóg mu yonent yàlla Moussa kalimullah wax naa ak yàlla ba ko yàlla ne loo bëgg mu ne ko wax ak yow mu ne ko dina dis tatar de mu ne ko waaye loolu laa bëgg mën ne ko demal ca doj wa waaye lu mën a xew xam na fa ñeent fukki fan xew na fa waaye lu mën a xew rek am na kalimu laa am keneen ku jóg mu ne ko loo bëgg mu ne ko doon sab yonent muy muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waa léegi may laaj yàlla fu mën amee xarit am fa ab yonent am fa ku mu waxal waa mënu fa amub sëriña yàlla dara jombul ci moom xam nga fi ne lan mooy wax ji. Mhm. nit moo mënta doon yàlla. waaw waaye yàlla bu ko doonee sax mu bu ko neexee moom mu doon aw weñ. te teewul mu yàlla. teewul mu yàlla. yàlla bu ko neexee mu doon doomu aadama teewul mu yàlla. ku weddi lii rek sa tawhid des na. ndax yàlla ajjuma deful. Mhm. lu samedi deful. Mhm. ak dimanche. mais yàllaa seet ba mu neex ko faal li may mu def ko muy sangu bis yi. waaw shahru si xeq da deful. waaye yàlla xool ba mu neex ko mu def ko muy sangub weer yi. Makka ak Medine defuñu lu Paris deful. Mhm. waaye yàlla seet ba mu neex ko mu ne ko ñu ne mu def leen sangu bis yi sa sangu dëkk yi. dëkk yi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba ko yàllay tagg gënal ko ci ñëpp boobu jëfagul. ndax Adama leer gaat la mu am ba ci Moussa ba ci Isa ibn Maryam mhm. ku ci ne loo am ci barke bi ko amee te boobu dikkagul. waaye yàlla soob mu neex mu def ko. waaye yàlla moom nag. yow nit ku ñuul. Hmm. bul xeeb sa bopp. yàlla na mu bindee ñee. Hmm. def ca ñoom lee. Hmm. waa lan moo tax léegi tey mënta fekk tey nit ku ñuul ni yow muy sëñ Tuubaa. yàlla jël léppam jox ko. xam nga lu waral loolu. mooy suñu borom suñu ñàkk jom ñun jàpp nañ ne ñun maam waruñoo mérité dara. te day fa yàlla bindee ñee rek lu ñu bindee ala su xaaloo bale shahid naaga rek. bi loolu amee nag. sëriñ bi mu neex yàlla ci coobareem hmm. mu def ko nii mu ko def hmm. léegi nag su ko defee nag léegi coow li bari nanga mënta am ndax yàlla lu mu may yonent salaay salaam du ko may keneen weddi nga yàlla hmm. yonent salaay salaam moo gën ñëpp waaye fii mës ta am oto yàlla mayu ko ko di amul étage yàlla mayu ko ko waa te ñun ñi nga xam te dañoo bon yàlla may nañu loolu kon loolu wax ju yàqu wax ju yàqu ndax di nga ba dégg naa baax waa kay way nak ni muy mel moy <coughs> tay fi catholique bi mhm. boko ne amna ko gën hisam nu mariam mu lank mm-hmm. ne la ko nga xamé ni si amul bay yalla da ko fonk ba sax doomi yalla loolu lañ wax ñom mhm. wa li nga bëgg koy indi léegi nag Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yi moo tax yàlla may ko lépp day lank mhm. ñu nit nak non lañ mel ak ñi ci dess fi tay tey bi may seigne touba yi ci dul murit boo ko waxee day lank waaye lank ga lank yalla la lankal ndax dégg nga bu baax waaye sëriñ bi nag nee ba fa nekkee yàlla la yàlla njëkk a def mooy dafa maa jox barkeem mhm. ne ma xoolal ma ne xool mu ne ma sama barkee ngee mhm. ma ne quoi mu ne ma jël illa yaqutta barakatillahi mhm. yaa man xasantani bii min laahi sëñ bi ma del si toog nee na mu daal ne ma alquran day ak xam-xam ko bëgg nga mu ne ko waaw mu ne ko demal fee ma dem fekk dëgg dëgg alquran fa mu nekk ak xam-xam mu sunu borom ba mu ne ma jëlal malakani alqurana wal xuluma نفعت بالجاولة والحليمة نينا ما ديل سيكوك مراد نما أدنا أك الآخرة منا منا كو جوخنا لكو سين كو آم منا منا كو بندل ملكني الدنيا أخرى سمد ما عندو اللي اختاروا مامدو ساكو كو دي الله كو جوخ الله أكبر سين بنا نما ديل سيكوك منا ما خوال سما باتنا غفه دم الخول سين بنا دم خول باتي يالله فنا مطول منا ما ديل أخفيت لي maa laa yëkkoon li ahad yaa baatin laysa lahu kufuwan ahad allahu akbar sëñ bi nee ma del si toog mu a ma am na lu gën a gaaw ma ne ko lan mhm. mu ne màngasinu ma am lépp mu nga ca màngasin nee na ma àgg na malaaka bi ni na ma dugg mhm. nee na may gu ma ko gii may may kan la mu ne ma diw lañ ko ma sa may bii yeneen sàng bii wëli sàngam nee na ma xool ba may yëpp jeex ma ne ko léegi ma ne malaaka bi ne ma goy tànn ma ne ko ana doom bi mu ne ma mi nii ma ne ko doom bi laa soxla sunu borom ne ko bindal walifta an razaayina al xayraati bii wa safiyan bii awxaati yàlla jox ko maa ngi sinam ba xanaa kon lépp yàlla mi ngi ci sëriñ bi mu daal ne ko ruuy mindee fi nag mu ne ko jëlal jox naa la ko simaamul war a azim la dallaay fii yët yi kooku picc yeeg ñëpp ñu ngi ci loxoy suñ tubaa ndax lan nafaani wa biye yan fanlu waraa maanaam mindeefum yàlla moo mën a gis sëñ tubaa koy jariñ la yàlla di ko jariñ ci sëriñ bi la ko la la ko teg moo tax sëñ bay ne ko lu yàlla bind. Hmm. amoo ci ndend. yaa war a dund yàlla na nga dund. ku dul sëñ tubaar day dee suñ bee fi des. ndax lan. kavaniyal baaxiyal mamaat sarmada yàlla mi fi des moo ko fegal dee. suñ tubaa ngoog loolu nag du dara ci yàlla. Hmm. ndax ku ne jaar nga fi. Hmm. def la nga def. yàlla dimbali la may la lam la may. sëriñ bi dikk def lu kenn deful. maanaam fi nii tey adduna. Euh, boo lëggee bis penc Mm-hmm. sunu borom bu taxawee daal dina suuf mm-hmm. ana ku ma sa jaamu yàlla ci kaw suuf mm-hmm. wala yi góor yàlla yi riir mi day foor ku ne si loxoom mu daal ne ana ku ma sa jaamu yàlla ci barab sàng riir mi foor ku nekk yëkkati loxoom waaye bu ne ana ku ku ma sa julli ci géej gi lu tekk la ñu def ab yonentu mësu koo def wali yu mësu koo def xutbu mësu koo def aqtaab amul ku yàlla bind ku ma sa taxaw ci géej di di di di jaamu yàlla foofu. koo koy borom Touba. léegi nag bi loolu amee mu jaar yàlla fu ko kenn jaarul yàlla deful ko lu mu deful kenn. ilay xaadallahu maa lam yakuni wala yakun abadan li mumkin. est-ce que yàlla daal jox na ko loo xam ne sii. mësu koo jox kenn. te dootu ko jox kenn. moo waral suñu borom nag door ko tegtal boppam nag. dalla niyallaahu alallaahi bila. taxarurin wa umuri taqabala. léegi nag bañ fa nekkee nag. foofee nag Mm-hmm. Mm-hmm. sëñ beeg yàlla. yàlla ak sëñ bi. sëñ beeg yàlla yàlla ak sëñ bi. ba suñu borom ne ko léegi nguur gaa ngi. Mm-hmm. yow daal am nga sañ-sañu def ci loola neex. te dooma tàggu man borom nguur. wallaahi te man mii borom nguur gi nag léegi balaa maa sax yow dama lay tàggu. yaquulu lii waaw wala yaquulu minnii illaa li man chittu bis ni minnii kookoy borom Tuuba kookoy Tuuba sëriñ bi nee na léegi nag suñu boroom jël nag léegi lépp léegi xolatu ci kenn ku dul man fii nii te yàlla dafa dafa soppi lépp. Mhm. te gaa ñi bàyyiwuñ ci xel. Mhm. moo ne day jullit bu am tawhid. Mhm. lii may wax bu ma ko waxee war nga ko mën a nangu. ndax bu la leeree ni. téere yi wàcc asamaan yu bari la. waaye tey yiñ ci gën a xam dañ naan tawreet. jiil saboor ak furqaan ni ñu nekk. waa bu ci nekk yàllaa ko wàccee. digle ca lam ca digle. ñu di ko ca jaamu. ana loolu mooy lan yahudi yont yàlla Isa yont yàlla Moussa. Mhm. bi mu dikkee nii ñuy jaam nii la doon jaamoo yàlla. Mhm. ñu taxaw sol seen i koppati di nii rek. di def nii rek mhm. yàlla bëgg ku deful loola boo faatoo yàlla yóbbu la sawara. yàlla xëy ni boobu neexatuma. ñu daal dina ko bu ma ko bu la neex. mu indi église bi Isa ibnu Maryam. suñu nee kindig ñëpp teew. su ko defee mais muy wax ñuy dégg ñuy woy di fecc boobaa neex yàlla. yàlla xëy ne boobu neexatuma. ñu ne ko bu la neex ma inna diina inda islaam maanaam lii ci yonent salaay salaam. moo defee tey ba tey yahud yi boo taxawee tey ni leen yàlla génn ci seen programme bi ñu xeex ak yow ndax ñoom ba tey ña nga ca di am ca seenu tawhid hmm. waaye catholique yi boo demee tey leen yàlla génn seen programme ñu xeex ak yow ndox di nga ko baax hmm. waaye yàlla moomee nag moo dox ba bis nag mu génnaat ca programme boobu ni sëñ bi léegi yow rek laay dëgg na nga def ak Ahmadu loolu nag la gaañu nu mu bu wax te loolu mooy ber sëñ Tuubaa ber sëñ Tuubaa moo tax nag léegi nag sëñ bi nag léegi am na lool nag léegi lu mu lay fayee moo tax mu ne la bëgg ma lëggéeyal ma jox ma àddiya dem aljana tuubaa li abdin muridin saariqin lahumoo bi xidmatin aw bi xobbin aw haddiyaat ba mujj ma ne nag léegi am na lu gën a gaaw ñu ne waaw mu ne ndax bis dana ñëw nit ñi naan ah ba muy wax loolu kat jëmm ma taxoon te nekkatu fi sëñ bi daal ne waaw baax na waaye man jamono ji xam Sëñ Tuubaa dafa jiitu jamono. Mhm. ndax tey fii lool bu fa yemoon rek. Mhm. tey boo ne yii Sëñ Tuubaa lëggéeyal ko dem jox Sëñ Muntaxaa ki nga xam ni gëmm sëñ daal ni Sëñ Tuubaa boppam la doon wax. ndax ni nga ba waaye sëñ bi am na lu gën a gaaw ñu naa mu ne bëgg ma su ma bëggee rek bëgg yóbbu laal jëna yaquudu lil jinaani man ahabba ah. man lam yuhibboon dinaari kabba yaquud dina woo mat lil jinaani jëm aljana jëmale aljana man ka nga xam ni ahabba bëgg na man la ñu xibboo ni nag ki ma bañ kàbbaa da koy jéngli naar ca sawara boo koy borom Tuuba nga xamante si tey bëgg gi moo lay womat yóbbu na aljana mhm. waaye ñàkk bëgg gi mooy jéng kooka ca sawara mhm. kon moo tax kon waaw nañuy wax nit ñi luy tax ñu bëgg borom Tuuba daf ñu nii foofu la mbir mi nekk mhm. su ko defee nag kon ñu xam ni kon waaw sëriñ bi ci boppam. Mm-hmm. moom lu mu war a def def na ko. walaay ndeysaan. waaye ndax ñun li ñu war a def ci moom def nañ ko. déedéet lu am solo tey bu ma waxee ne yàlla da koy jox. Mm-hmm. moo tax sëñ bay ne ko. yaa ëmb àddina ji. Mm-hmm. yaa ëmb àjjana jee. yaa ëmb ñiy ëmb ñëpp ak seen i ëmb diwe. koo koy borom tuuba. koo moo tax mu ne alhamdulilahi ndéem doon naa murit bu dëggal luy dal ko ànd ak borom Touba ëllëg na ma dem ñu naa mu ne jëmm moo ma ci doy suul dëddu moo ma ci doy bisu bu ñënte ba Touba rek nay sama kër ku gis ki ma gis ba noppi seeti keneen ah. demal ma dem ba ma fi fii rek a dal sama koo koy borom Touba koo koy borom Touba ku ànd mu mucc ku mu mucc ku ko bëgg mucc walaay ndeysaan ku ko liggéeyal mucc ku ko koy borom Touba su ko defee mhm. kon nag nu war a xam nag te dafa jot Mhm. te fee nii li gaa ñi daw jaru ko ndax yow ki ngay sedd mhm. naan damay sedd gaa ñi ndax soo waxee ñu wax lii mhm. ku sëñ tubaa sóorul daa sóorul daa jërte sédd wallaay ndeysaan ndax ba sëñ bay tànn ñoom fa leen bawoon <laughs> waaw ñoom nag ñoo yey ñun nag ba sëñ bay tànn ñun la tànnoon ci mbaaxam wallaay ndeysaan moo tax kon ñun dañ koo war a ber te sëñ tubaa wax nii maanaam ngir wax la la kennam gi ajaabani rahmaana xablal xalq sabina alf san bilaq yàlla wuyu na ma juróom ñaar fukki junni at te bindagul dara. foo akbar koo koy borom Touba. waaye nag xaale ma ñi rahmaani. waaw xaabil xalq. Mhm. sëñ Touba ba noppi nag da koo boyal. idlaaq la. Mhm. nga xamee ni si nekkoo ko toppatoo ba dara te loolu fu ko yàlla waxee du moom jëmmi sëñ bi. ndax moom deful luñ koy toppe waaye ñun ñii ànd ak moom. Mhm. la yàlla toppatoo dara bu dee dëgg ci yow. moo tax mu ne la kon. murit ba yegg. xolam dootul wëndeelu ba daj lu dul sëriñ bi ko xam boobee murit alam allahu akbar waaw loolu nag la koy mën a yóbboo mooy xasida yi xasida yi ndax xasida li tax muy loo xam ne si murid ne da nga caa war di dox moom lim lay jëriñ mooy suñu wàllu dëndwoon kitaabati faaxat suyuqu tarbiya wa kullu xayr wi suyuqu tarxiya téere bii kat mo gën a kawe sëriñub tarbiya ak sëriñub tarxiya ak wa kullu xayr ak yëpp yiw te yéen salaay salaam biñ ko laajee. ne ko alquran ni aw yiw. sëñ bi moo gën a kawe yëpp. waaye boo ci jàppee lu lay defal. Mhm. tuwasilu aqlaami. Mhm. ila llahi aabidan. bilaa xalwatin wala am xaa kama kama ax naa. Mhm. maam dalay womut yóbbu la ba nga àgg ci yàlla. waaye ba àgg ci yàlla na doog fekk يجدني حين ملك المقتدر كل ولي جاي تدير بيب ولي يجب جيم تي الله بو ني من غاي فك موتو كون كوكو موي بروم توبا بروم توبا سوكو ديفه لو خامني نون ني نيو واتي ديكو واختاني سيغ بي رومنا فوف رومنا فوف دا داني كو دو نيت دو جيني واو تدو ملائكه واو دو كائنات الله تدو مساخ allahu akbar waaw yàlla yooyu la bi ni te Guinée waaw ak kaaynaat kaaynaat mooy euh, maam planète bi mhm. ndax dégg nga baax la yàlla bind mu ne ko na doo ci benn kon kumu hmm. ndax dégg nga baax waaw kooku fi seen Tuuba ndax dégg nga baax waaw dégg noo ko yow foo ko teg waaw fala la yàllay teg walaay ndeysaan Sëñ Tuuba Sëñ Tuuba foo ko foo ko teg la yàllay teg hmm. ndax yàlla moom xoolatul lu sëñ bi mhm. déglootul lu sëñ bi ci ànd sëñ bi daal ak nu mu mën mel. Mm-hmm. yàlla bëgg na ci moom. Mm-hmm. ki àndut ak moom ak nu mu mën a mel. Ah. yàlla bëggul ci moom. Mm-hmm. xamoon nga loolu ndax la ko waral mooy. malakañul quraan wal xuluma nafante bil jamal wal xalima xam nga léegi nafante bil jamal mu ne ko yàlla jox na ma al quraan ak xam-xam daal nafante bil jamal wal xalima nag mooy maam tey ñi xam ak ñi réer maanaam ñëpp fa yam fi moom moo leen dimbali. allah moo tax sëñ Bay ne ko woon. waaw yaa yor cërub gaa yu baax yeeg yu ma man. walaay ndeysaan bu fekkee da nga ne kenn jot ci ma yor mel nii ma mel. Mhm. bu njaboo ñibbi kon. ndeysaan xam ni doomi nit dootu mel nga mel. te wax jii ma wax soree naa ki fan. allahu akbar. moo tax. nit ki nu mu mën bu fekkee bëgg na sëñ Tuubaa teel ci moom. moo tax sëñ Musaa Ka daal ne ko. Mhm. mbindeef yëpp a yam fi moom. Mhm. alal yëpp a yam fi moom. ndeysaan bëggul bañul du xeeb du yem moo gën a wute xarnu. waaw fi nekk nii tey lu waay mën a rëy rëy. tàmbali Cheikh Adama Gueye. waaw sëñ Bakhoum Cheikh Ibrahima Fall kulluhum. Mhm. mënuñoo weesu ñoom. waaw maqaamam doon taalibe borom Touba. walaay ndeysaan. ndax di nga ko baax. tey fii mhm. ba mel ni man. mënoo doon. lu weesu doon taalibi borom Tuuba waaw moo tax mbindeef yëpp a yem mbindeef yëpp a yem waaw fi ne tey ki joxe junni mm-hmm. ak ki joxe milliard mm-hmm. ak ki joxul dara te am yéene mm-hmm. ñoo fa moom waaw moo tax sëñ bay ne fa jant bay fenk ak fee muy xaloo sowe tey yilif ko ak lax si yàlla bilaay ngir ku dul ka sàkk aras xam naa ni faj timalif faj timalëf ku mën di ànd man day xëy mujj teg ma fële. walaay moo tax sëñ bi rek. waaw koo àndal ku dul sëñ bi. waaw dina xëy teg la fële. walaay ndeysaan moom nag boo àndee moom xam fu ngeen mujjee. waaw ku faatu yaa fay njëkk bu ñuy jullee nga di fa teew. walaay ndeysaan ñuy rob nga ànd di teew. Mhm. ñu dem nga des tontulaay. allah gars yi bu ñu suulee. waaw ñoom ñibbi nañ. waaw yaa ngi dégg ba. waaw waaye sëñ bee toog. allah akbar kooko nag. waaw kon nun ko war a bere. ak nun ko war a kenn nun def rek doyul ndax di nga lam ci teg mooy bu ñaari gaay ne jalañ mm-hmm. di laaj lu neex nga ni jalañ mbégal mm-hmm. ñu mbég mu dootu dañ Hmm. yàlla ak sa barke maa la gëm. maa la gëm koo koy borom Tuuba. waaye hmm. na solo si kenn la borom Tuuba bi. Hmm. at noo ko frère fàccee. xas di yu ci bind. xas di yu am solo yoo xamante ni. maanaam kimtaane la. dëgg la xam te jox na ko adduna ak alaxira. Ah, wallaahi jox na ko nguuram. dëgg la mu sañ cee def lu ne. dëgg la magasin yàlla yi. dëgg la xamante ni caabi laaj. waaw waaw xam ne suñu tubaab am xel. waaw barke borom laaj laaj rek. dëgg la moom jël lépp. nga xam ne kooku da kennal. kon nag ñun da nga kaa kenn dal war kaa tiitaroo na wax nu si Serigne Touba magasin yàlla yi hmm. na wax nu Serigne Touba tamit ci maam lu ko yàlla may hmm. ak lu mu lu mu bind si xasida wax loolu yëpp yàlla moo ko may hmm. àdduna ak muy lu leer naañ ñu xamante ni kon ñun doo war a tiitaroo Serigne Touba ñu danga kaa war a teg sa kaw Serigne Touba ma koy wax ni rek ñun Sénégal doo war a sant di sant rek Serigne Issa Diène dakaa wax lu am solo mu ne ko ak ni ko ñoom ak lu si biir sant la ko mbàkke taxu nañ jot sama àq de ndax nañ jot sama àq de mm. loolu rek dafa yéeme waaye waaye nag mënul noo waxtaan Sëriñ Tuubaa te mm. waxtaanu Baabul Muridiina mm. royukaay góor yi muy maam Cheikh Ibra Fall ñu bëgg rek na ñamal si ay parti nu mu doon jàngee taalibe ak nu mu doon jàngalee nu ñu war a toppee Sëriñ Tuubaa ak fas mu amoon si màggal bisimilah waaw jërëjëf maam Cheikh ah, kooku moom niñ koy waxee rek Cheikh Ibra moom mooy yoon bi waaye borom Touba mooy boroom yoon mhm. kon Cheikh moom daa teel a nangu mhm. moo waral mu raw ñëpp mhm. ndax moom daa teel a nangu ni moom borom Touba ko moom mu ñëw nag bàyyi lu dul sëñ bi jàpp sëñ bi ana loolu mooy lan moom kat bi mu dikkee ci sëñ bi dangay ngay déglu lam njëkk a wax bi ko sëñ bi waxee ndongali ana lan mooy say tànk dañu bëgg àgg ci yàlla kon bëgg àgg ci sëñ bi tax ko woon jóg ndax xamul kuy sëñ bi. allah fi ne loolu fi ne la nit ñi war a xam. waaw sëñ bi ne ko. kook ñu wax ne bu ñu ko xamoon fu mu ne doo ñu fekk. Mhm. mu ne ko damaa topp tànk ba mu dugg sa kër gi. sëñ bi xam ni kii moom ku yeewoo ngi. xam ni kon xam na li xew. sëñ bi ko bisimilah ñu jaayant mhm. moo tax sëriñ bi ne sëñ ma dema ko bind. Mhm. boo demee ci téeram ba. sëñ Tuubaa nee na. Ibrahima Fall bi mu dikkee fi man. daa bàyyi boppam. bàyyi ay bokkam. bàyyi boroomam bàyyi boroomam mhm. nee na jekki fi man mhm. waaye jekki na fi man nag mhm. nee na ba ma wutal ko ay bokk yu ko gën ay bokkam maanaam jiboole ko maam maam defaral ko boppam maraale ko ak boroomam mooy jiboole ko ak boroomam ndax yàlla ko ba mu bala waaye booy bàyyi yàlla na sëñ Tuubaa rek tax te loolu seerafaal ko ñu ko def ci kaw suuf moo njëkk it lu mu am jox sëñ bu gisee sëñ Tuubaa moom dootul nekk Mhm. ngir lan cofeel ga bëgg sëñ tubaa a rawee ñëpp fi ne cool li muy rëy rëy mhm. fi ne ni tey maam Seera Fall la sëñ mët jaw paxa waxoon mhm. bi mu ñëwee fekk sëñ naan cey Ibrahima Fall mu ne ko waa Mbàkke wax ñu lu la defal ñu defal la ko ndax ñu am li mu am sëñ bi ne ko defalu ma lu ngeen lu ngeen ma defalul ndax Ibra Fall defal mu def yéen ñi ku ma ci defal nga def. Ibra Fall bàyyil mu bàyyi ku ma ne ci bàyyil nga bàyyi. waaye Ibra Fall damaa teg fa ma yàlla teg. allahu akbar baat boobu nag Mhm. muy baat bu doy waar. fa ma yàlla teg kon mhm. boo bëggee xam kon nu yàlla def sëñ tubaa xool ko Cheikh Rafal. ndax dañ ko baax. waaw moom borom la def sëñ tubaa. ndeysaan léegi neen sëñ tubaa sëñ tubaa nee na damaa teg fa ma yàlla teg. moo tax mu daa wax naa àddoom mhm. bëgg leen Ibra ngir li ma bëgg. bëgg leen Ibra ngir li ma ko bëgg. est-ce que waaye bëgg leen Ibra ngir gën maa bëgg. xaar ma tey ab murit tey fi nga koy nattee natt ko ci Serap Faar rek. Mhm. maam boo gisee pas-pasam kawe. Mhm. xamal ni murit a ngoog. Mhm. waaye fi tey bu fekkee gis nga tey mu am lu muy diingat ci mbiram lu mu tuut tuut. Sëñ Tuubaa nee na yàlla nee na. donte lu toll ni dee dee we nga diingat ci Ibra Faal ëllëg yaay doon matum salam. walaay ndeysaan ci kon Ibra Faal kon. kooku kon góor ñila la. waaw aboo rijaal. du caaginu buñ koy wax góor ñi tey a tax. Mhm. góor yàlla yee fanaan ak diiwaan ñoo ñoo la Cheikh Fall di seen bàyyi waaye lépp nag ñu ko amee ci barkib sëriñ barkib sëriñ waaw moo tax soxna may minot kubra ne woon barkib sëriñ bii mhm. la ñuy àndal ci lu mën a doon ba tax na moos amatuñ ak jàq-jaax liw ma na mu mëne woon nag ca ñooña mhm. ni law ak njabootam mëne tey ci ñëpp ndax li ñuy joxe ni ñu nangoo li ñu jëfal sëñ tubaa amul koo xam ne si sa njaboot mel nañ ñoon sëñ tubaa waaye ñoo yay na tey ndax dégg nga baax. Mhm. ndax fi ne nii tey daax daan àddoom ah, buñ demoon ba ëllëg borom Tuubaa ne na xëy mbaay. Mhm. yéen du ngeen ñàkk man Ibra Fall rek maay ñàkk. ndeysaan ndax ku dul man rek jàpp nga sëriñ bi ak. allahu maanaam ak yàlla bu julli jotee nga julli bu woor jotee nga woor. ak man damaa bàyyi lépp yàlla jàpp sëñ bi. baato ak ak. moo tax Cheikh Samba Diar may daal ne ku la gënal këla gënal. ndeysaan moo la gënal këla gënal këla gënal këla gënal nag moo ma ta xam moo ma ta am wallaay ndeysaan sëriñ bee gën ki ma gënal moom mii gën ki ma gënal nag xol bi la jël joxub xolam loolu mooy seen wax waaw tey amati na solo moom Cheikh moom booy waxtaan moom hmm. day mel ni ñëpp àll bi la ñuy nekk hmm. ndax façon gam doon doxee dëgg la ci Sëriñ hmm. waaye nag lu gën a am solo moom lu bëri am na moom Sénégal daa bëri lu ñuy diingat cible mhm. comme ñàkk julleem bi waaw ana la moo ko waral ak sëñ bi maam lu mu si doon diwee comme naar yi mhm. duñ si dégg yenn histoire mhm. ñu bëgg ñu gën na leer boo ko defee ñu dugg beneen parti waaw xam nga ñoom ak ñàkk xam-xam la xam nga fi tey julli dafa am lu ko gën a kawe fi ne te bàyyi ñu ci xel ndax dégg nga ba ndax inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar la wax julli Mhm. day tax nga bàyyi ay ñaar tiif ak ay ay ay ay caaxaan. Mhm. waaye nag lam teg wala wala zikrullahi akbar. Mhm. allahu yàlla nee na waaye nag li màgg fi man yàlla mooy tudd yàlla. allahu kon julli màggul fa yàlla. ñun nag ñoo ko màggal ko. julli julli julli waaye yàlla dani day tax a bàyyi yu bon ak ay mbir. te ñi koy def ñoo dàq fen ñoo dàq jëw. ñoo dàq def yu bon kon julli gi kon. jëriñu leen dara te loolu sax li koy firnde mooy tey waa ji day julli allahu akbar allahu akbar bu ne asalaamaaleykum ne astaxfirullah maam bu ne asalaamaaleykum astaxfirullah lay njëkk a def waa léegi kon nga xam ni kon ni nga doon def yow baaxul moo ne boo fenee looy wax astaxfirullah boo jëwee astaxfirullah boo mooy yàlla ne astaxfirullah léegi julli ba noppi ne astaxfirullah <laughs> léegi seetal kon yow li nga doon def waaye wala zikrullah akbar allahu akbar maam tudd yàlla naan astaxfirullah doo ko dégg mu Cheikh Rafal nag la rawee gars yi moom daa fekk moom fi gars yi yem mu tàmbali fa jëm ca kaw te ca kaw moom la fa xam nga mooy lan. Mhm. kenn sëñ Tuubaa ber ko di ko liggéeyal. moo su ko defee ni ñii. Mhm. ñoom. Mhm. seen xam-xam ci këyit la yem. walaay ndeysaan xamuñu yàlla. yàlla nekkul ci këyit. ndax di nga baax. yàlla nekkul ci këyit. su ko defee nag kee xam ne moom ci këyit lay dox. mënta xam yàlla mënta xam lenn yàlla. moo tax Seera Faal ku ko diingat ak ku la mën a jur. ak loo mën a jëfal yàlla. barke borom Tuubaa. faatu la see dugg sawar. billaay walaay boo ko tuubul. loolooy li am. walaay ndeysaan waaw. comme moom. Mm. gaa yaa ko xamul waaye jëf na lu yéem. may faral di wax may royekaay gars yi la ma doon jaay lépp moo ko moo tax yow Fall sa bay bi sa may bi amul tànn. waaw kon ñu dugg si màggal ñuy wax màggal bi daal. te loolu doon luy lëmbe Sénégal. Mhm. waaye damay faral di wax ni maam xam-xam si dënd la. Mhm. waaye saa soo dóoree si kàggu rek ree ba faaw. la looy mhm. jàng ba noppi ko sa dënd. ñoom nag uh, day day day yóbbu xel nit ñu bëgg na leeral nu si rek génn nu si itam. leeral baax a baax. xam nga. ñoom fii dañoo réer ndax yéen salaay sam woon. wa kullu bidaatin dalaal. waaye naa. mu ne bépp bidaa. mu ne maam ak réer Mhm. te gépp réer sawaroon lay yóbbu mhm. waaye dëgg dëgg nag bi daa xama mooy la mhm. ñàkk topp borom Touba fa yàlla waaw la tax dégg nga wax baax fii ki nga xam ne topp na borom Touba moom dañ ne ci bidaa jaata ñoom nag seen bopp ñoom ñoo ne ci bidaa ndax lan mooy bidaa pour ñoom lu yéen salaay salaam defuloon maam ñu def ko ci ginnaawam ñeneen mooy bidaa Mhm. ñoom ñoo ñoom ci ñoom ñuy wax loolu ñoom ci bidaa lañ dëkk yéen salaay sam daawul di war eh, njaga njaay daawul war oto mhm. xam nga daawul nekk ci climatiseur mhm. ventilateur xamu ko woon du génn ci image yi léegi su fekkee foofu la ñuy woo kon ñoom ñoo maam ñoom ñuy dund bidaa léegi nag su ko defee la ma la waxoon ne yàlla soppi na mbir ya te ñoom xamuñu ko loolu moo leen sonal ndax bi màggal dama ne la du len du sant yalla sant yalla rek xana moom du dëgg daan ndax len sakru Waligi, dina ko alxuraan ko indi du deug mhm. wa bernde mhm. tok mhm. gisé ñun ñi daaw lañ gëj gisé baren ñu toogaat jokkalante teraangu ngir jëm yalla manam bu fekke lolu moy bida kon watal ni aj màkk yi la barke borom Tuubaa ndax yoon sallallahu alayhi wasallam jëgul won senegal dem di aji Médine la jóge rek dem aji kon képp koo xam ne si kon dëkkoo Médine kon dem di aji kon. Mhm. na nga xam ne kon yaa ngi def bi daal. yaa ngi def bi daal ah waaw jóge loolu Afrique su dem aji. mës mhm. ta ñëw fii di. Mhm. ndax dégg nga ba taw ma arsal danaaka. ilaa lañ koy bal ak si sëñ bee ko fi ñëwal. waaw ndax dégg nga ba su ko defee kon. dafa am lool. ñoom dañoo réer. ndax dégg nga ba te xamu soxor. te li gën a bon. mooy kiñaan. kiñaan waaw way kam dani Mhm. bu leen soxor bu leen kiñaan mhm. buur yàlla yaana nan ko ñaan kiñaan dafay soppeeku jaan màtte luggee fut mat matam mhm. loolu moo leen dal te sëriñ bi ñoom fi leen jaaxal muy soxor gi mooy sëñ bi daal mënta nekk fii ci saayir gane fii àdduna ci saayir jàng fii ci saayir maam daal ame fi lii ci saayir <laughs> ndax dégg nga ba fàtte yàlla may waaw tey sëñ bi yàlla da koo may waaye sëñ bi daa jënd de. sëñ bi. koo mën a tudd may yàlla la yor. Mm-hmm. sëñ bi nag moom njëgu yàlla la mm-hmm. lu leer laa wax. Mm-hmm. ndax natt yi ko yàlla teg. mësu koo teg ku mu bind. allahu akbar. waaye rafetal gi mu def diggam ak yàlla ku yàlla bind mësu koo mësu koo def. ni mu jaamoo yàlla ku yàlla bind mësu koo def. ba tey jii boo ñëwee ci dëkkam bii. ni ñuy jàngi alquran. daaree alquran yi ni ñuy jaamoo yàlla. ni ñu wéetale yàlla. amul fiba ba Makka amul fiba ba Medina. walay ndeysaan ndax ñom kat bari na ci ñoo xam tay ñay jaamu yalla hmm. nguur ga tax. nguur ga tax waaw. Hmm. ndax amna lool. Hmm. buñ ko defé nguur ga dal seen kaw. motax defuñu ko waye buñu génné dem Paris. wala Londres. maam tay sàngara su fa ne ñokoy naan. allahu akbar maam lu bon lu ne ñokoy def. Oh, te ñun murit ñun. ba ñu gëné soro tuba li gëna baax. ndax ñun li ñu gëm moy suñu ne señ bi nga and ñun. ndax kat raqibak atid mom ñoy bindi waaye lu ñu bind balaa ñu koo classé ji. Hmm. dana jaar ci loxo Sëriñ Tuubaa mu xool. moo tax murit bu nekk di war a bàyyi xel ci li muy jëf. Hmm. kon loolu mooy li nga xam si mooy li am. ñoom seen bopp nag maam dañoo tardé. tardé maam tardé mooy. fii nii tey euh, pour wax la ne la sëriñ bi. Hmm. yàlla ci boppam moo d'accord ak moom. adduna ba mu sosoo ba tey. dëkk bu toll nii. ci ko sosoon. ay sëtam a ngi nii. bërki dem lañ mujjee gis doomam. ñu naan mat na téeméeri at. Mhm. ñi naa matagu ko. Mhm. kooku. Mhm. tey dëkk bi mën toll nii. xam nga ni loola. bu ca yàlla àndul woon du mel nii. bilaay walaay te kooku lu mu def yàlla ci ànd. màggal gii. li ci murit yi fere. ñoom seen bopp sax xam di leen a jaaxal ñoom. ndegam lu ñun la jaaxal ñun liñ ciy def. kon maam ñi ci doonul dara moom nu muy demee. tuuma junne nañ ko te waaye loolu yàgg nañ ko ndax suñu yonent lu ne teg nañ ko ko. maam lu mu def ñu ne njibar la. ñu wax a wax rek. waaw loola nag sëñ bi sëñ bee doonu baatinam te moo doonu saayiram ci Seexul Xadim waaw kon lu nu am ci waxtu sëñ Xadim kennal borom Tuubaa xam naa ni bëriwul waaye sa kàddu gu mujj waaw kàddu gu mujj gi de mooy mhm. jafandu leen tey dëgëral mhm. bu leen yolom kuy dëgëral bu leen ko wax yolomalal ndax ku yolomal daal di yolom jamono nag moo toll foo xamin si mhm. maanaam tey ñi gën a bon tey ñoo ne ci biir diine lislaam waaw ndax la ko waral mooy su fekkoon ni tey leen lislaam waxoon ña nga ca man defe naa yem salaay salaam waxoon mooy sa mbokkum jullit te nit ki bu xësee ba taxaw nga gis ko muy julli gis ko muy woor di def maam ponk yëpp kooka rafetal njor ci moom waaye tey dañuy bàyyi yahud yéeg ñu bon ñi di wax rek ci murit bi te day fii ni tey yow murit bi mhm. ak ku mën a doon mu la mën a wax ci sëñ bi ba wàññi sa pas mhm. moom mu ngi lay jox pas-pasam Mm-hmm. te moo ne fii nii nag kenn faatugul ña faatu woon ñëwaguñu. Mm-hmm. del si wuñu mm-hmm. kon ndegam fii la ñu nekk nag li sañ Bay Jaxate waxoon rek ku mën di wax na nga wax ku mën di jëf na nga jëf ku dee ñu fa sànni fee del si wax ñu fi des waaye tey gëm borom tuubaa tey mënoon maam waroon na tey rek nit ñi tey jël exemple tey sëñ Saliou Mbacke moo gën ñëpp mag ñëpp gën a sell ñëpp liggéeyal yàlla loo xamee ni sii nit ku weex mës koo def nit ku ñuul mës koo def boo demee xel koom fukki junneeg ñaar ci ay dong mu yor seen lekk seen naan seen lépp ngir jëm yàlla xamul seeni waajur sax jàng leen alxuraan xam-xam kooka tey bu mënee taxaw nangoo doon taalib Sëñ Tuubaa kon defe naa kon kuy as gor war ngaa mën a doon taalib Sëñ Tuubaa boo ko mënul nga maan waaye nag yoon moo baaxoo noonu maa moom jamono ji nekk mhm. dañuy wax rek muy gën a jëm kaw kon daal li may dénkaane mi sama kàddu gu mujj mooy nanu xam ni mhm. nañ jàpp sëñ te wolu señ bi te ragal señ bi te yaakaar señ bi te xamni kat fi ci kaw suuf mhm. lu neex way mu def mhm. way ku dugg ci bir suuf barke borom tuba lo fa dajal lu borom tuba mhm. da nga ni way sama nday kon no ngi sant ñep di gërëm ñep tay ñaan sit sunu borom yok ko tek ko ci kaw ci barke borom tuba ba li nga si mom ngeen ci bëgg rek señ bi dafa leen lu seen jor ci barke señ tuba وعليكم السلام wa الله taala وبركاته ah sin xaadim kenal borom Tuubaa ñu lay jaajëfal lool si nangu bi at magal gi nu mu da nangul na jappandel bi ñoo ci sante bu wér at waxtaan gu am solo bi ak njaax bi at tamit xamna lu kuy Serigne Touba da damay wax ni maam ñun Serigne Touba da nga wara ngoy da nga wara japp da nga wara fonk kuy sisu ñun de duñ sisu gem nañ ko bëgg nañ ko wolu nañ ko sopp nañ ko taw ku am borom Touba da nga wara namo waaye na xam na ci liñ koy mujjee bay bay ay yeneen anam waaye yeneen programme waaye yeneen bis kon mbokk internet La Dépêche TV ñoo leen jaajëfal ci teelu bi at ci màggal gi